Monday, I have few questions like you might bëgg asked ask government in Gambia um I don't know moo tax may laajte because Gambia dëgg dëgg dañ worrying time and we need to be asking these questions so I'll start by asking the government lu xew lan la leen Gambien si def that is so hideous for Hamenteni. Foreigners are killing us left, right, center, and then they're getting pardoned. <laughs> Allahu Akbar. Ah, wow. li tam ku ko waxut wala nga ngurumtu ko sa biir néeg kon dee What have we done, we the Gambians? What have we done to our government that is so hideous to the extent our kids are getting killed by foreigners, even if they're Gambians? I, I want to ask this question first. What does life imprisonment mean in the Gambia? Does it mean after five years you got to be released? Or does it mean you have to serve life imprisonment? especially if it concerns or if it is to do with killing somebody. I'm only asking because understand, Uma, why is this guy who killed this young girl who was born in 1993, her life was cut short, hands and legs tied, tied up and murdered, and yet the murderer walk out free after five, six years? I just want to know. I'm not disrespecting anybody. I am not pointing fingers at anybody. Of course, I'm pointing fingers to the government, but I want to know why and how does your life imprisonment for killing somebody works. Because if the High Court rules that this person that kills this, this person need to, to be away from the rest of us and stay his entire or uh, her entire life in prison because he or she is a danger to society. I don't see how and why after five, six years, the guy needs to be released. God, God, God. I am reading it all these days, but I keep ignoring it and thinking, maybe it's not what I am thinking. Seriously, Gambia, we need to rethink. Our priorities aren't right at the moment. This is not the time to be divided. We need to, like, stick together as thick as thieves to be able to fight whatever. I'm not saying going outside on the streets, disturbing other people's, damaging other people's property, no, or insulting anybody, no but we are the power. And together we can achieve so many things. Um, God knows that I am. I am dumbfounded. I really am. Because a death sentence means a death sentence. If you're accused wrongly, I understand there will be an ongoing investigation. But somebody that you and I know did this crime, why is that person and how comes? What, what? Oh my God. Gambia, don't like a question be. I'm not being disrespectful, nothing, because all these days, mangi is on on Facebook ñu ngi president bi dafa pardon uh, so many people and among those peoples are killers and whatever they are after somebody that was sentenced by the High Court in 2018 within the six years in his serving his, his lifetime, he was released. And I am here thinking, how does the, the life imprisonment works in the Gambia? I mean, to the extent, pardon deport well that's a slap on the wrist for us ñi du leen put deport ko segam killing our kids means nothing to you to the extent ngeen ko deport mënoon ngeen ko and then mu continue with his hideous life billaay Gambie du ñun fiñ jëm will be a very very dark place for our kids and our, our great grandkids if we don't stand up now rather than fighting and pointing fingers at one another there is a big price to pay for being petty, for our stupidity, for fighting within ourselves rather than fighting what's right. I keep asking myself this question all these days. Who was the first person who suggested the pardon of this guy? And why was he pardoned? On, on what text? What's the excuses that they can come, in, come up with to say that this is why he was released from his life? <laughs> Allahu Akbar. Gambia, I am urging all parents ñu dimbale ku gis sa doomi moroom ci lu bon kontaagal yaay bi walla papa bi soo ko munee correct on that spot correct ko ñu dimbale wante bi suñ njaboot gi buñ sànku buñ leen sànka ay waay Gambie sigil leen digaale massa lii leen di dal metti na I cannot express my anger. But I am not angry. I am just disappointed. We had hopes. We were confident. Anybody who comes after Jame was going to be a blessing to the Gambians. But God, am I not wrong? Here I am asking questions that are on. Um, I think every Gambian wants to know. We're not being disrespectful. We're not hurt. We just want to know why was this guy released from prison after five, six years. He killed our daughter, somebody's granddaughter. Maybe by now she could have been married, get a child or finish her education. But God knows it's really difficult. It's really, really, really, really hard living in the Gambia right now because you can't say anything. Even if what you're saying is right, even if you know that what you're saying is nothing but the truth, they'll still find time to call you in for questioning. Waste your time, taxpayers' money, and then end up apologizing for, for not doing the right thing. Oh, let me just shut my gob up because suma continuer di I will get angry and say stuff that are not meant to be said in the open. And then there's a huge price to pay for it. And right now, I don't think that anybody have that time. Why, what's happening in the Gambia right now? Li neka di doh. Suñ len joxut together ñu use suñ heads Find a solution to it. There is a huge, a very huge, big, massive price that's our kids, our next generation are going to pay. Manak, I am not one purma ma su fekkee ne dañoo wax ne nañ leen stick together ma ma ma ne xaaral boycott the good deeds that we are supposed to be doing Why Gambia moo neexut a xeexal ci dara Gambia moo naxaree gunge Gambia moo naxaree seexal plan Gambia moo naxaree waxal Gambian bi moo naxaree déggooyal because su fekkoon ne li ñoo métti take taka life, especially those that got voice on social media muy TikTok muy muy muy muy Snap muy Facebook Instagram Twitter right anything you vent our anger, our disappoint, our disappointment. at least xëj na dina am yenn ci yiñ bugg a mu faju mu faju fi di politics et ñu fi di cross carpet from one party to the other all in the name of uh, wanting a car or a better life man su ma waree ak ngor dama dé ak ngor su dee daf ma koos bu ma am dara man dinaa àndaa nit ki su la xamul ñuy éeg di daanu di jóg bés bu la xamee mu óor ma ne li taxoon ma jàppale nekkut ci yow ma bàyyi ba bàyyi ànd ak yow but this isn't right what's happening in the Gambia right now right now is not right I don't know who who decided to to make all these pardons or I don't even know what to say anymore. I am really, really. Hey, who am I to sit here and start chatting stuff that many people won't? Because the moment I start get these questions, and then you end up going deep into it. Um, Gambia dañoo kii moom lu nekk moo wax wax before you know it you get yourself into trouble while benn fan la ñoo ne I am with her I am in solidarity within thirty minutes of you being arrested the rest of the Gambia forget nañ about ne you were all meant to be fighting this cause that puts her in that place in the first place ñun duñ mun a ñu ñu def dara ci fulla ak fayda ngeen toppa seen nonsense group yi nañ fight baro must go Baro must come Baro must bring and bring my friends su necessary dañ leen wax lu important sàcca foreigners young. ngi fi bari dégg man I will not be the one pour ma wax ne nañ génnee foreigners si suñ because suñ do réew ñu ngi nekk ay foreigners si deka these crimes that foreigners yii di def ci suñ dëkka am na ay Gambien su ko def si yeneen dëkka wax bi neexul nañ leen ko wax so many people will come on live and say waaw eh, foreigners yaa ngi nekk suñ dëkka di fa dugal drogue bi di jaay drogue suñ suñ Gambien si yaa ngi yeneen dëkka di jaay drogue di dugal drogue ci dëkka boobu kon mënuñoo wax ne nañ leen génne foreigners si suñ dëkka I will not be one of those buy wax ne nañ leen génnee foreigners waaye dama ne nañ leen tighten suñ borders yi kuy ñëw war ngaa ñëw ci lu set comme suñ suñ jaa eh, Gambien si nekk yeneen dëkk yi di def crime si suñ leen jàppee duñ leen dee spare kon any foreigner kuñ jàppa fii with a hideous crime waruñ koo spare Yaham xam jaay taay la yaa xam réep la yaa xam rey la yaa xam sàcca la yaa anything loo xamante is a crime muy citizen be ak foreigner bee ci em waaye dégg naa ñun ñëpp ñuy xajaanee ne waaw ñun ñun eh, ñoo tane Sénégal ñun am independence what do you guys call independence Independence in a country where you can't vet your opinion. Independence. Land independence in the Gambia. Sixty-five billion. we're going backwards. What is independence without freedom? What is independence uh, if my people are getting killed every day? Babies missing. Babies getting killed because other countries' stupid serums or, or painkillers. Young girls getting murdered. Our boys taking the, the back way. Our sisters giving bad and, and lose their lives on the uh, operation table or in hospital. Our mothers are suffering from high blood, low blood, anything, and there's still not a solution in a country we call we have independence. There are two, two things Gambia need to be scrapped out of their textbook. And one is uh, celebrating uh, Independence Day, and the next one is football, whatever. Gambia ñun fan la ñoo amee yaakaar ku Gambien si yaakaar nga tas suñ yaakaar ñun amatuñ hope sax pour ñuy yaakaar I'm not doing hope to think positive in the Gambia. Our mothers are getting arrested. Man, I support the cleaning the street thing. I support it 1 billion percent. But there are certain arrests that are made. Seriously, Nafmade Jahal. I saw that lady who was arrested because she was asked to remove uh, a, a flower pot and she told them, yes, I'll do it later. And they said, now. She said, leader for this, Dumo Komun. And then she was like, arrest her. I'm like, why? Why arresting an innocent lady? She haven't done anything. You didn't want the flower vase there. She'll take it off. But then we have American embassy in the middle of our road and nothing will be done about it. Gambia. <laughs> Mandama book again Sidikabi. Seriously, this is this is doing my head in. I am having multiple episodes a day just thinking about the nonsense that's going on in my country. ñi war protect dëkk bi ñu ngi ñoo jaay doole ñi am alal dimbalewuñ ñi ñaaka ñi xam So soo those that call themselves the intellectuals they are so stupid ñoo against the president rather than them getting together as one team and fight a good cause why every day nga gis call himself an intel oh he's very intelligent she's very intelligent Why ku nekk bugg naa fal sa party of six members nga ne dangaa xëccoo So boo xam you will do the same or worse suma do bi naan bi daf dee mel ambulance dafa xëy rek déggal siren si ni moo def te lii yuuxu dafa afoo su yuuxu danga on ne siren comme siren xale <coughs> yu ndaw ñooy jaay seen boppa si dëkk bi go to the hospital am na ñoo xam ne duñ dee am luñ lekka ay gerte saaf la ñoo jënd ay mbuuru the government cannot even feed the the sick then <laughs> feed the Gambians. Go to these primary schools, these government schools. Send toilets so for fa duggee dina la meeg nga feebar for the next fifty years xale yi am hot meal from eight hours in school Jangan neex na de pour sa bir bi su amé dara sa brain bi mëna function properly Why problème Gambians moy soy wax dega yow yaay ki xamadi suñ la gisé nga gëna di saga duñ xalaat ne ki lan moko jaral mu bayyi soxlaam ñoo tok di saga they will start judging you without not even knowing the reason everybody is a god sent but you kuñ wax ne yow yaay saagakat bi ku nekk feel like they're so important Wow, xam nga man mënumaa Why do duma dugg si bàyyil eh, nit danga motax dama dé wax mané suma def live suma méré nit def ma dara wala nit saga ma ñew diko tontu kuma wax né bayil wala nga call suma live di wax di act stupid wala intelligent ma saga la ba paré dog la bu because suñ sété everybody will be like facebook bi légui dafa boring torop these are the demons on social media the evil people on social media will be quiet naa def yaa ngi ok tey defuloo ah facebook be moom tey maa ngi stroll this stroll right. Why gisuma gisuma dara gisuma dara facebook bangi boring ba bugg you know why they are calling it boring because us the Gambians are not fighting one another Muka ñool waa no these days we are not disrespecting each other's parents we're not dragging our kids hanging their pictures on social media. Mother, evil people yi di ne eh, ay Jezebel di wax ne Facebook is boring I am really I am really chuff ne Facebook be is boring you know why because we are not fighting anymore why gis nga tekka biñ def nii mënoon nañoo a solution to things that's happening in our country duñ disrespect Ken? Why ñu work together build a man power team boo xamante nii suñ life. live they will know that these people mean business because man dama gis ne noise bi noise bi dem na ñëw na social media jigéen ñi ñoo amee voice bi góor ñi dañ ñoo seetaan su élection jotee ku nekk bu taxawa borom kanam yu wow yee borom kanam yu dënga yi ku nekk ñëw taxaw wanting bi be president waaye su jigéen taxawee pour ne dafaa def the same wanting to president ñu xeex ko moom So leen foogee ne one man team ku nekk am sa plateforme mooy any government wala Moy make a changes in this country then we have another thing coming until and unless you get some priorities you right You said, ñi nga nyomla ne ñoom la yàlla dénk voices te suñ hear people listen ñoo xam ne dañoo wax xaalis taxul ñu wax ñoo xam ne dañoo wax seetuñ ku leen may dara duñ woyaan wax bi dëgg rek lañ cee seet ak lu jëmale Gambie xam nga mun nga waxal nit ki lu baax xeetam lu baax mu may la alelam waaye suñ waree jël pour Gambia waruñoo seet liñ war a seet mooy lan la suñ eh, next generation di njëriñoo ci dëkk bi soo man dama feel like ne suñ on together eh, am na jigéen You ma man jigéen yi ma xam ñu nekk social media I'll start by Mama Sally she's a rock she's a very strong independent woman I adore her her strength is God knows than so. Fatoumata Tarahman Koka There are those that I cannot be calling their names. Sigori, góor ma boole ci jàmme sori jigéen ñi fàtte naa tiimala waatoo Farbata Dramé gis nga suñ together You create something work waxtaan buñ seet parti parce que Gambia parti du ko yóbbu we need to bang our heads together and think nobody is born stupid suñ toogee ñu xalaat liñ xalaat ñu toog waxtaanee ko ñu ni neen ba pare doo koo génnee ci biti luñ songa daan ko lu ñu songa daanu why the way Gambia is going at the moment and the way Gambians are going on on social media, nothing will be done. And no president will be removed with the way things are. You'll see. Mark my words. Come 2026, the same government will reign. Because you could see it from the start. The strongest opposition party, the longest awaiting presidency uh, political party mu ngi am sen sen yena nit ñoo xam ne ñu ngi move from the left to the right and people are not seeing what's coming next di ngeen toog gis ngeen tornado bi hit si eh, yeneen political party si su amee bu kenn génn naan ay fooguñ ko woon nii hey xam nga li gàmbi Gambie politique métti fi wala nekk fi politicien dignity moo fi bariwut gor gor li gore ci boppam moo fi jafe nit ki danga àndaa moom suy ñàkk suy am mu ñàkk nga gën koo téye nit ki doo àndaa moom rek ngir looy am ci moom àndaa nit ki ngir interest baaxut te suñ politicien li tax li tax dañoo ñëw di ñu indil seen xalaat yi ñu naan oh this person is promising give them a month or two benn suba nga eew ñu teg nataala mu ngi shake hands with the president ñu ne move na leen in politics there's always a traffic jam in politics every day you wake up prepare to be surprised because there is no honesty in these politicians. And then we, the Gambians, we pick them. We pick, we call them picking the finest out of the lot. And uh, we think that we're picking the finest, but God knows that we're picking our doom. And I don't, I don't, I don't want to be part of this, this madness anymore. I just want to ignore politics. I don't want, because the more I am talking about politics, I become upset. Because there are so many things that are in my mouth, but I can't say. I have millions of words to, to utter, but I will not dare say it because in the Gambia, speaking your mind, my the truth, will be a life sentence, while those, the murderers, will go scot-free. I am done with this country. I am really, really, really done with Gambia. If I have to vent my anger right now, I'll be in trouble for just saying what's the, what's the 100% truth or then somebody who committed a crime, a very, very hideous crime. will be like, oh, a slap on the wrist. Oh, you're so handsome. You only kill a girl. What's wrong with that? You can go home. Go home and continue your life. That person is dead. The family needs to deal with it. And we call that gamma. We call that independence we call ourselves proud Gambians. What when all we do day in day out is fight. Sosalante. yóbbuwante sëriñ yaaxante suñ dirty laundry ñu indi ko on social media di wante seeds while important matters are packed in a box stored in a cold room somewhere God knows where Mm-hmm. if we did not wake up suñ eewut si suñ nelaw yu métti yi ñu tëddee di ko nelaw I don't care bugguma liggéey government bi I don't care I don't live in the Gambia I don't care my kids are in Europe I don't care man political party bi la bokk gis nga this I don't care attitude buñ am it's our problem until and unless ñu rethink what we're thinking right now duñ musa am lu ñu neex ci dëkk bi because any president ku ñëw daf ñoo jàppee ne ñii dañ xiif dañ buggee soo ooyee su nit ñëwee ci yow nga jëndal ko moto wala nga jëndal ko cycle dina toog social media waxal la loo bugga mu waxal la ko because ñun ñoo raw del ko xeti essence moo ñu neex xeeti kook sóoru xeti dunguru suñ moromi nit toppa si suñ moromi nit di ko téyal baag di ko waxal loo xam ne nekkut ci moom ok na mm. ki ma àndal ñëwaagu amul benn jigéen bu fi ñëw hmm. ok su ñëwee ngeen ooma mbaa bari na mbaa def na ok thank you man dama this wall is not my home I'm on transit I'm a passerby and hence this wall is not a promising home. We are all passing by. I will take the little I have to speak of nothing but the truth, even if it has to kill me. That's exactly what I am going to do. I know I'll make enemies along the way, and people will hate on me like nobody's business. But God knows me. I don't give a flying fuck about who likes what I'm saying or who hates it. because fake news talk fall fold our hands and say it's nothing to do with me it's not my business my family is better off nothing will get done in this country thank you suma family mun better off why what about others ma foog ne ñi nekk ci naaj bi ñoo fi bàyyi ñi ci kër gi loolu laa dégg ñuy wax ñi ñi mun suñ dimbalewut ñi munut ñi am dimbale ñi ñàkka ñi wér dimbale ñi feebar ñi xam dëgga dimbale fenkat yi fekk defuñ loolu suñ society dina sink ba ñun ci suñ boppa ñu ngee sinkaale te bàyyiwuñ ci xel just because you don't like me doesn't mean if I am speaking the truth I am disrespecting you. Gambia dafa nekk dëkk bu naxaree wax gis nga sooy wax dëgg there is one fool sitting right there at the corner of the street di seetaan sa life naan waaw man la why is he talking he's talking about my dad he's talking about my mom he's talking about my sister my family this is Gambia money talks but bullshit works in the Gambia trust me di nga jotee nit mu tooñ la ba ne daf la but because i am not family in this government they will decide to they will they will think ah, let me decide and teach this person a lesson just because they can nit daf laa tooñ bi àdduna yëpp teg ci seen bët te Gambia bari na naa fexe yoo xam ne dañoo gis ñu ngi laa tooñ ñëpp noppi di moment hey hey wax naa leen ngeen génneel ma xale yi si biti suñ eewoo da dee génn si biti waaye di moment ne tontu nga rekk si seen tooñ yi ñu laa tooñ ñëpp génn waa bàyyil nit dangaa génnante nit dangaa tane war ngeen a jomba loolu kenn du la jox dëgg bi ne dañ la tooñ waaye soo génnee pour fayeku si nga gis all these foolish idiotic people thirty-two karat fools ku nekk génn foog ne am na access ci sa life bugga laa wax lan moo xew ak yow yow you're better than this no I am not better than it darling So that's why I say inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Gambia yalna na yàlla oyofal souf ci suñ ko parce que li ñoo dunda ci réew mi dee rek rek rek rek mo ñu gëdal parce que xëñ na nit ki defal na yalla lu baax lo xam labal na lo xamanteni bu déyon yalla fay ko ci Adam again help us don't please. In this country, they reward you for being an idiot. They reward you for being a fool. Gambians reward you for two things. They reward you for being a good again, or they will reward you for being a dog or dog or cat. And I can't be any of those. I am a mother, a proud mother for that matter. Jigen la manga nga ni yàlla bi ñoo dencal liggéen aw dara waaye xam le ne la yàlla def ci man man nangu ko dara duma gënal ma ceeñ ni ma mel du am ami wala melo kanam tax ma bugg a di gor gorlu di nuru nuru lu wala ma nuru lenen. I will always be remembered as the foul mouth lady rather than ne ah moom de mooy bokkoon na ci ñi am ñaari tur de auzu billahi mina seytaana a loolu suma ngor mayu ma ko te Gambia kuy taxaw kuy xaar ma taxaw sa bunti kër pour ñaan la maalo bu ma toogee ma xam ne xiif dina ma rey man doomu bunti kër kenn I am not rich. God knows that, but I am blessed because God is my provider. That's why I am blessed. Rusuma nyaka ma ko yàlla ku ci ku ci ku ci yàlla xéewalal nga duma God knows ne I've known so many VIPs Nima xam ñi xam ay borom taranga dañ bari I know so many people from the first family to the last family I've been there and got the t-shirt xam naa leen waaye xam nga lu ma mënut di di di di dogo dogo nit pour alal wala lu ma am kon su ma la buggee wax dëgg duma la ko mun a wax te su ma la buggee wax dëgg mënuma la ko wax damaa coog gis nga duma nekka duma nekka ba ma wax la ko suñ ànd bi yaaxu balaa caag ma toog suma place sëy suma sëy bi te yàlla rek tax I'm not a millionaire. I'm not a, I am a bututaneer for that matter. I am not rich, but I am blessed to the extent. lépp lu nit di xajaanee ci àdduna alhamdulillahi rabbil alamin man ñi nga xam ne mag they look at me and call me Auntie ami ñoo xam ne mag they look at me and call me yaa boy. kenn duma gis may dox dox yi ñàkk fayda dugal dugguma ci yëfi ñàkk fayda bokkuma xarit bokkuma groupe bokkuma tuur bokkuma nata bokkuma whatsapp groupe ma ñëwuma suma kër laa toog di sëy suma sëy suma amee suma soxla dem toppatoo ci ko wëññeeku waat wéetuma introduce suma wéet because nit ki soo introduce wéet si sa life si ngaa aydul ñàkk kilifa Wetuma, dewma lekki ebe wuma supa wuma bala sas ndax man luma nama press button pot presse botin mu ñew ndax deka bi bo fi bugge deka bo bugge nek gambien da nga wara eh, eliminate sa bopp su certain things da nga wara excuse yourself always in our society because ñoo laa indil wax ñoo laa yóbbul xamul dina la disrespect ko gen dina la buga tutil. ku teraanga dab dina foog ne fii la àdduna em te xëy ñun yàlla ak ñoo suturaal kar masàlla bi ñoo tukki ñu bari dañ koo dégg te demuñ fa rek di play akara aya bi kon ñu ngi sant yàlla jàngal nañ suñ doom yi alxuraan jàngal nañ leen nasaraan ñu ngi leen di gunge ba léegi ñu àgg fiñ jëm ci kàttani yàlla ci mbaaxam ah ñu ñun caalit waruñu ndax nag yàlla defal nañu yëpp waaye there is one thing I want us Gambians to concentrate on naka la ñoo préféré Nakalanyo was ñoo the saints in this country and to be able to do that means we need to gather together we need to get our acts together all of us ñu nga xam ne ñu ngee takka am platform am followers foogu ñu toog ñu def lii amuñ ci fay waaye liñ ci dégg ci jërëjëf ak ñaan yiñ ci am mo ëpp millions ci biir bank bi man ay rada ma def a good deed ma am jërëjëf si from a very poor person rather than ma def a good deed si a rich person mu fay ma Gambia nak mu ngi ni su fekkee ne they kan release a murderer crown a liar and a hypocrite. Be friends with all these fake ass people. And yet, those that speak their mind needs to be locked up or called for questioning. <laughs> what a country. It's one nationality. I will revoke any time. I don't want to be part of this, this, this, this country. We were once called the smiling coast for a reason. We weren't rich. God knows Gambia is never rich. But our inheritance are rich. Our culture is rich. Gambian bilum nyaka nyaka. The first thing you'll see on a Gambian face is that huge, beautiful smile. Luñ am bokka ko ku ñew muy holidays ak Chinese bi China ci ku ñëw lu liñ am dinañ ko yow we were so happy with what we have that was made us once called the smiling coast but now ñu ngi this di and we are the weeping coast jigéen ñaa ngee jur di dee yaay yaa ngi eewu half past three four o'clock di dem ci mbedday di jaay ay ñetti tamaate ñaari naana góor ñaa ngi tëdd ci biir kër yi wala ñu ngi àndaa jigéen yi di mbaraani di youths abandon nañ dëkk bi ñu ngi jël seen life tey la ko ci ndox mi géej gi amul banqaas guddi mu lëndem lu nekk parce que géej dafa am boroom lu nekk xale yi di ko gis ñii di dof ñii di dee ñi di ranké yalla di leen sutural bañ aga sen destination pour téral wajur ñi ci dess our kids as young as 14 15 16 ñu ngay jaay sen boppa xala bu jigen bo gis mu ngi moto e high class building te liggéeyut ñun wax kat suñu génnee diko wax we are the problem because yéen ni seetaan yéen a bari ñu feek ci seen biir ni loo wax ñu gis ci seen boppa loo wax ñu ne hamu laa So xamuñ dëgga soo nga am enemies if you're fake God knows na the amount of followers yooy am it's mind blowing so dama bëgg ngeen wax ma yéen ni seetaan léegi ak ni seetaan later on is this country not cause Anyways, it was a question, a one, uh, a one or two questions that I was really eager to ask this this government is how does your life imprisonment works and how come a prisoner that was sentenced to life in prison for killing someone be freed after five years? These are the questions I have. I'm not here to disrespect anybody. That's not my intention, God knows. But I think it's it's a question on every Gambian's mind, especially those that lost a child. This is a betrayal from the government to us. We cannot accept it. This guy that you freed, you pardon, and then wow, the the the, the best I don't know whether it's the best or the worst idea Then go paa dafa rey benn xale li Gambien who was born in 1993 daf uh, ko rey ba pare she should have been 25 or 26 hands and legs bound killed daf ko rey ba pare ñu paadin ko ba pare and then decide ne xaaral ñu génne ko Gambia deport ko Sénégalais dañ koy yóbbu mu dem ñibbi maybe Macky needs him Wow. My people, are we not sick in the head? Are you guys thinking what I'm thinking? bi wax wax di nga nampal jaan wala nga golo I don't have time this morning because I'm going out but yàlla xam na Gambia nekk fi nit ku amul baat óorul Gambia xamuloo kenn kuy liggéey ci government bi emaleel sa fecce si Bara Mbaye Gambia soo amul xaalis choose your friends wisely ndax réew mii ñu bokk nii ñu wax ko Gambia dina sink te kenn du ko sink lu dul ñun Gambien si because ñun ñi wax ne ñoy di intellectuals ñom ci seen bop ño ño am problem because ñom lu dekk bi lu ñu kotek, rek ño ñoo ko because ñu ngi tok setan every man and himself Jigen yu wara dajalo sax neka botu ci ben jigen mu neka ben botay jigen bu takku te jigen luñ songa daan ko Sakuneka and get divide themselves. Those that are running towards the sitting uh, government, pour, why? Pour new new new am moto. Gambia moto amuloo kër mënuloo fay luyaas amuloo loo lekka dangaa xëy suba taal sa moto kër gu nekk nga dem laaj lan lañ toga. Ni mee la ni ñii ñeex how can you drive a car <laughs> not even be able to pay your rent I rest my case I, I'm not doing this uh, uh, uh, uh, me, I am not doing this anymore with Gambians. I am done, man. I really am. So, do have a lovely weekend. Juma Mubarak to you all. Yal nañu yàlla sama sama suñ njaboot yal nañu yàlla suturaal te yokk ñu xoli muñ ndax fi mu nekk ñun ñëpp suñ bit xoli ñu leen xooj ci we can feel no pain anymore. Gambian face nang the worst. But the worst is new lowland for foog face nañ the worst. The worst is yet to come. Toglen leen is not my business. Toglen leen is not my family's problem. Toglen leen is nothing to do with me. My kids are safe. And then we'll see. Until then, do have a wonderful weekend. Bye-bye.